xelaata ñoom ñoom Abdou Aziz ak Baye Ndiaye. kitaabu naa ci rabu somaatu ma àll na ñu ngi ci loolu. Mhm, te bu sottee bu sottee. di nga ko dégg. Ah. bu neexee yàlla. incha allah alors ñu daanelee ko ak ki nga xamante ni moom moo di Reug Reug gis nañu récemment nekk na champion ci MMA bi. doore ci li nga xamante ni moom moo di mbapat liñ naan de zéro à euro moom la Reug Reug daal di def. est que xam nga ne mbëri senegal yëpp Reug Reug rek. moo ci donn mbër ki ndey ak baay bugguma rakki Moodu Kan mi bokkoon ndey ak baay papaay pap kan moo jur baayam pam njaate njaay ma bëre woon ak pertene arène sénégalaise moo jur yaayam kon dafa donn mbër ki ndey ak baay dem jàngi bëri nag ba man ko parce que caaro yi dafa yàgg bëri ay champion donc boo ko commencé ca treize ndiir fukki nit ak ñett la daan daan ci par guddi très ndiir euh, euh, Bécaye 2 moo jëkk mas dóor fa lay balde mu daanu Ibra Ndiaye champion la woon Caaroy la dëkkoon nga dugg nag Ndaata Sambarga Sele Dieye euh, Jacques Dutronc Djibril Wade Adama Mar ndeysaan Ndongo Bey Pape ah, Njaw Ndiaye dafa bari wan ay champion yoo xam ne caaroy mosoo ñëw rangale ñëpp boo daanee kii boo lëggee kële daan la kon ko ku juddoo ci euh, fu mel noonu nag euh, màgge fa jàng bëre parce que caaroy caaroy fi mu ne boo demee caaroy géej léegi boo dalee ci euh, tànk jigéen sax mu tëgg la mbot jigéen ñi koo ci dal ci tànkam mu tëgg la mbot wala mu nooju la caaroy ñëpp a mën a bëre mu doon mbër ci ndey ak baay dem jàngi bëre ba man ko toj nga mbapa euh, mbapat yi. Mhm. dem na ba nga xam ne bu duggee làmbi séeréer bu bindoo kenn du bindu. parce que dañu xam ne moo koy jël. Uh-huh. léegi nag bu demee ba am ndam lu toll ni li mu am parce que ndam li mu am mooy champion du monde. te li tax mën a bëre am solo euh, tubaab yi xeex rek lañu man mais mënul bëri mënuñu bëri léegi xoolal nag. bi muy euh, euh, euh, reyante ak tubaab bi ki bëre la ko reyee parce que bu korpañ se mu buddi ko dóor ci suuf tiim ko da koy dóor ba mu tëdd loolu xale yi nañ ko nañ ko nañ ko nañ ci bàyyi xel rëg-rëg nag ñu ngi koy félicité di caaro yi gépp di wax ne trop ceinture boobu war na ko war a mën a yóbbu ba présidence de la république te gis nga li tax euh, euh, euh, jom am solo ki ñu c'est la première fois ci Sénégal ñu jël jigéen jox ko sport mm-hmm. parce que da koo xam liggéey ci te ñetti ñetti ministère la yor dafa yor ministère de la jeunesse muy xale xale yi parce que xale yi yor réew mi léegi may may profité foofu di ñaanal le président yi ak euh, son premier ministre Ousmane Sonko ak gouvernement bi yëpp mais ay xale fi mu na ñoo yor réew mi euh, ministre des sports euh, mu yor ko yor ministre la culture muy ñetti ministère xanaa xamoo ne lamb culture bi moo ëpp sport bi ngemb yi culture la tuus mi culture la woy yi culture la bàkk wi culture la sunu ayca ayca ji sa culture la ah kon mm-hmm. sport bi ñaata la. Mm-hmm. dix minutes wala quinze minutes muy bëri beeg xeex bi. Mm-hmm. kon euh, ñu ngi ñaanal euh, madame la ministre euh, yàlla may ko ndam. parce que man toogaguñu maak moom sax mais gis naa ko xam naa ne ci kàttanu yàlla ak yonent bi fii ñu teg làmb incha allah làmb dina dina ci dina ci gis boppam làmb dina avancé bu neexee tabaaraka taala Euh, euh, euh, Malick un lañ ko may pour ci boppu CNG bi mais ragal naa ne làmb ci fédération la jëm. Mhm. parce que làmb état amul ci dara. ah état amul dara ci làmb. Ah waaw léegi nag bu ñu ko defee fédération comme fédération de football ni muy kii dinañ catégoriser làmb ñi war a bëri dinañ bëri mais xale yu bëri léegi. Euh, euh, promoteur bi. bu dee tëgg làmb day set mbër mu am mbooloo. mbër mu mën a feesal mbër moo xam ne dina mën a feesal làmb ji mais bu dee fédération nag dinañ catégoriser mbër yi mbër yëpp bëre te loolu la ñuy ñaan yàlla ci loolu rek dama ci euh, nuyu bu baax Biram Biige Mbay moom itam yor lu mat yoo xam ne lépp ci sport la kon ku mel noonu ak ñeneen ak ñeneen. war nañu war na bu fédération amee ñu jox ko ñoo ñu diriger lamb mais lamb état amu ci dara dara dara te boo gisee ni ñu sécuriser lamb ji dimanche nga xam ne promoteur bi lépp lu ko waroon ci sécuri euh, euh, sécurité def na ko ci biir ak ci biti. Mhm. waaw euh, alors Reug Reug moom mu ban adversaire nga ko gisal actuellement ci làmb ji. Reug Reug day bàyyi ji làmb yi. day bàyyi. Eh, lamb la la bu paree ci diggante Ama ak ak ak day bàyyi lamb yii. Mm. parce que doo gis ay milliards di bëri ay millions. Mm-hmm. doo gis ay milliards te li champion du monde bii mu ne. ay milliards lay bëri fi mu ne dootul bëri mais duñ ma fay un milliard may dem di bëri ji cent millions. Mm. Ah? Mm-hmm. donn na mbër mbër nag. ci ndey ak ah, baay du ci muccaat rek. nekk ah. <laughs> du ci muccaat rek. Ah, ah, mi ngi noonu. <laughs> xar matt rek. ah mi ngi noonu de moo tax euh, nañ ko bàyyi xel bu baax gi nga euh, rëg-rëg ci xam nga ci lu muy mujj. Mhm. promoteur. promoteur rëg-rëg lay nekk promoteur. Mhm. parce que du nga yor benn xaalis bi nag ah di ko di ko jële ca kaw indi ko ci réew mi te liggéeyalu ma réew mi dara. Mhm. bu neexee tabaraka wa taala lii ma la wax nag. Diallo Moussa na nga ko denc. ñi mhm. nga bu paree ci ñaari combat fii la naan ñukk làmbi Sénégal di dóorante ji milliards yële parce que doo gis milliards di bëri million. Mhm. waaw loolu la ñuy woowee de zéro <laughs> ba champion MMA. waaw mais non uh-huh. ndam lu rëy la. ndam lu rëy la. li mu def benn mbër def ko ci Sénégal. waaw du Gris Bordeaux du Balla Gaye ah, du Bombardier ah du du du du Ama Baldé. du Eumeu Sène euh, du du Modou Lo du keneen parce que dem ba jëli drapeau euh, euh, champion du monde loolu ndam lu rëy rëy rëy la moo tax yàlla na ko ndam li jik parce que man sama man sama sët la waaw man sama sët la yaayam mooy sama doom mais daal nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax xam ne xale la boo xam ne ñaari combat yi mu desee ah, booy Niang am na problème amaa Baldé am na problème parce que kenn képp ku ci bëri Reug Reug na nga sóoraale ne kurpañ ñi ko dal keroog. <laughs> ku mu ci dal nga taale añ. Mhm. kurpañ ñi ko dóor keroog mu mu mu jël kuy euh, euh, ba am ndam li mu am a ah, ku ci bëri moom ko xool de mais est-ce euh, rek borom bitigu mbagg boo gis boo xoolee xool ba magasin ca nekk. roi des arènes li muy rëy rëy rëy champion du monde ko solo. dëgg la mais moom dafa galéré ci làmb nag. Eh, dama ne. Mhm. roi des arènes lu mu rëy rëy rëy rëy champion du monde ko solo. Mhm. te xale yi fi mu ne xam nga li tey seen waxoon ne business. man lamb business ay bëre. Mhm. mais dëgg la léegi lamb ji business la. booy xam nga lu ñuy xool ko ay ay ay trophée yooyu faale wuñ ko de li ñu faale mooy euh, xaalis kase bi. Mm-hmm. te tey toll na ci niveau boo xam ne ci kasem kitaabu naa ci rabu sama dama fil ar ne rëg-rëg euh, nañ ko bàyyi xel bu soxlawul roi des arènes man xam naa loolu mm-hmm. man xam naa ne rëg-rëg li mu yor moo raw roi des arènes ah champion du monde ah mm-hmm. roi des arènes fu mu yem du Sénégal Mm-hmm. champion de monde warul réew warul àdduna ah. dëgg ba pare ëpp xaalis. Mm-hmm. waaye xam ne foofu lay toog waaye. <laughs> waaw jërëjëf euh, papa mu mel ni nag yegg nañu ci cappaandaw émission bi ñu bàyyi la nga tàggatoo waale rek. waaw li may tàggatoo rek. mooy sant bu baax. gërëm bu baax nitu làmb yëpp nag. Mm-hmm. muy promoteur. muy ménager. muy entraîneur. muy accompagnateur. rawatina sama mbokki géwél yi muy woykat yeeg tëggkat yeeg ñëpp mais dimanche gis nañu ambiance boo xam ne ci biir lamb bi mbayang lu mu wooyee euh, nabu yaa daan woy ndikku woy ah euh, ànd ak ñoom jaxat ak ñoom Ayda Njaay ibi ñaa dafa ñëw euh, woy du njaay mbeng ñëw woy ñooñu nag bëgg nañu ñuy ñëw ci làmb ku mel du njaay mbeng ak Yves parce que seen baat parce que amateur bi bu arbitre bi soufflé combat bi soxlaatu la dégg ay ca soxlaatu dégg dara li muy soxla dégg mooy woy parce que euh, ragaju day wettali kanam ragaju day wettali kanam de jigéen ju dul ragaju ak jigéen ji ragaju bokkuñu <laughs> waaw moo tax maa ngi leen di ñaanal yàlla surtout yow yàlla defal la jàmm parce que xale bu yaru nga